moo ngoog di ñëw moo ngoog di moom la ñuy xaar moom la ñuy xaar moo ma defal lii moo ma defal lii mooy mbir mi mooy mbir mi waaye doo taxaw naan may ingénieur bi wala may nangam waaye ne doo taxaw naan may bi may nangam Cheikh Tidiane nga ne hal min murabbin hawaaka ma la Cheikhuna Tidiane kam misli Cheikh Tidiane la la dafa wóorul sax mu ni sax dafa wóorul moo tax question ba ba mu ko laajee moo tax question ba ba mu ko laajee laataa xaafiya ba jeex rek laataa xaafiya ba daa jeex rek ni laalaa wóorul ni laalaa wóorul wóorul wóorul xanaa xamu ni ku feebar sax mu ne xanaa xamoo ni ku feebar sax kenn du ko ko waxal laa ilaha illallah kenn du ni ko waxal laa ilaha illallah kuy waaj a dem kuy waaj a dem kenn du ko kenn du ko wax waxal laa ilaha illallah kenn du ko wax ni ko waxal laa ilaha illallah soo ne ko waxal laa ilaha illallah boo ne ko waxal laa ilaha illallah waxuma mu ni la waxuma dee fu mu jëm dee fu mu jëm safara direct safara direct weddina yàlla weddina yàlla déedéet déedéet da ngay toog ci wetam da ngay toog ci wetam naan laa ilaha illallah naan laa ilaha illallah soo ko yàggee wax soo ko yàggee wax mooy ko mu roy ko soo fexee ba mu mujj ci làmmiñam soo fexee ba mu mujj ci làmmiñam yonent nee na aljana lay jëm directement am loo xamante ni wóorul ndax am na loo xamante ni wóorul bas ba mu laajee ca saasi looloo tax bas ba mu laajee ca saasi ka la tontu ka la tontu nee na hël min murabbin di loolu la nee na hël min murabbin xawaa kamaala xawaa kamaala ka misli cheikh tijaan laa laa nee na nee na ndax am na benn éducateur éducateur spirituel ndax am na benn éducateur spirituel bu am ñetti maqaama yëpp bu am ñetti maqaama yëpp ba doole ci ba dolli lu gaa yi amul lu gaa yi amul mooy cheikhu taalim mooy cheikhu taalim cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya ak cheikhu tarqiya ak cheikhul kulli kulli ñii ñii ñoo nga yem ci cheikhu taalim ñu nga yem ci cheikhu taalim mooy ñiy jàngale abatasa jaxaxa mooy ñiy jàngale abatasa jaxaxa baasin mi mara baasin mi mara ñii mu ni ñii dañ lay jël dañ lay jël fóot la fóot dañ ñii dañ lay jël dañ lay la ci pay yàlla ba ma la ci yi ñii ñii koy boo dem ñu nga fa. ñii ñii dañ leen di wàññi. dañ leen di wàññi. ñii ñii dañ leen di wàññi ak i loxoy baaraam. dañ leen di wàññi ak i loxoy baaraam. waaye kii. waaye ni kii. kenn la kenn la mooy fardul jaamiu bi di Cheikh Tidiane. mooy fardul jaamiu. mooy cheikhul kulli. mooy cheikhul kulli. moo taxoon ma waxoon ne. looloo tax sëriñ bi ni ko woon ko. هو مرجع الكل والكل كله والكل كله وقد كل الكل وقد كل الكل والكل كله والكل كله هو مرجع الكل والكل كله إني ومنيتي ومنيتي الموتى في حب شيخ تيجاني حب تيجاني الفاسي حب النبي العدناني روح النقي القريشي كروخ شيخ تيجاني في مدد الأنبياء وأولياء الرحمن المدني ومال شيخ تيجاني أصحابه في الحقيقة أصحاب شيخ تيجاني بيعة الرضوان وفيل شيخ تجاني منزأ النقصان وفيل شيخ تجاني منزأ الحسبان ولولا القطب رباني حسابه فخرا كفى شمس البلدان كفاني شيخ تجاني كفاني خطب رباني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخنا تجاني شيخ تجاني بالفيود عمدتي إلى العلي وسيلتي شيخ ميممد كل قدوتي من فيدي الغتمتمي شيخ تجاني شيخ تجاني يا شيخنا يا أحمد تجاني هذا تبني من إمام النار هذا أبيدك طالبا من الوصول للخدرة الرحمن يا نبراسي وتعلقي بك يا إمام الأولياء معذور مشية الاتياء للغاسي شيخ جاسي وليا حاويا للمزايا للبرايا هاديا ذا بائل ذا وفائل ذا أولاء في الكمال دواها راقيا شيخ تجاني شيخ شيخنا الدياني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخنا الدياني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخنا Tijani. Ṣé Tijani ṣé Tijani. Ṣé ìkúná Tijani ṣé Tijani. Ṣé Tijani ṣé Tijani. تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني Tijani, Tijani, Tijani, Tijani, الوجود شيخ تجاري كل وجود شيخ تجاري كل وجود شيخ تجاري كل وجود شيخ تجاري

شيخ تجاري ولي الله شيخ تجاري ولي الله شيخ تجاري ولي الله شيخ تجاري ولي الله شيخ تجاري ولي الله شيخ تجاري رم جامي شيخ تجاري رم جامي شيخ تجاري مل جامي شيخ تجاري رم جامي شيخ تجاري مل جامي

تجاني يلاي شيخ تجاني يلاي شيخ تجاني يلاي شيخ تجاني يلاي شيخ تجاني يلاي شيخ تجاني يلاي شيخ تجاني يلاي شيخ تجاني يلاي شيخ تجاني يلاي شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني يا ربنا بجاء تاج العارفين وجاء الحامل لواء وذليل وشيخ التجاني قائدنا نسألك التوبة والتوفيق والعلم والأمل والتخير وصل والنبر الأولى والجمع بالذكر الرهائي والفوز بالنعيم بلادي ما فيه رحمتك ما في الكون ما لنا في الكون ما لنا في الكون ما لنا في الكون ما لنا في الكون سوى الرحمن